ndax yéen ñi nga xam ne yéen a saxoo di wéttalikoo 7TV télé bi ñu nuru ba noppi di ñu daj xam ngeen ni bi weeru safar gi teroog léegi ñu ngi àndandoo ak ci ay programme yoo xam ne dafa jëm ci wàccaay màggalu Touba gi ñu ngi Touba Mbacke nag ñun équipe bu 7TV fas yéene àndandoo ak ñu koy defee itam at bu jot di santaat suñu borom ginnaaw bi ñu mayee ñu fekkee ko euh, talaat ko ba tax ñu ñëwaat fii ngir àndandoo ak ñi nga xam ne yéen a wéttalikoo télé bi la ñu jéem euh, dégtal leen lépp loo xam ne rek mooy ruusee fi nga xam ne moo di ci euh, Touba Mbacke di ziar bu baax baax xalifatullah am mu di sëriñ Muntaxa Bachir te di ko ñaanal mu yàgg te ànd ak wér sa waaye di ziar képp koo xam ne rek euh, da nga di kilifa euh, ci euh, fi nga xam ne moo di Touba rawatina ki nga ne moo di xalifa Baye Fall yi di sëriñ am di Muudu Menda ñu ngi koy ziare Fall njëkk te di ko ñaanal moom itam mu yàgg lool te ànd ak wér ni ma duggee su ko su ngeen ko déggee xam ne am na foo xam ne foofu laa nekk maa ngi fi nga xam ne moom la ñu tuddee Baye Fall gi Baye Fall gi fi ji jënatul maxwaa nag di fi nga xam ne moo di kër xalif général di Baye Fall foofu laa ñëw nag tey fas yéene tàmbali waajal li nga xam ne moo di màggalub Touba gi ñu ngi biir Touba Mbacke ñu bëri di ko dégg am ñoo xam ne dund nañ ko am ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla eh, xëy na xamuñu ni nga xam ne exactement noonu la demee ñu ñëw nag fii nga xam ne moo di kër xalif ngi koy ziyaare moom itam bu baax a baax dalal ko ci télévision fas yéene waxtaan ak moom waxtaan bu yaatu ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax fu ngeen ñu mën a seetaanee ci réseaux sociaux yi wala itam ci li xam ne moo di eh, suñuy plateforme digitale baax te di la dalal ci 7TV. wa soxna Mariama ñoo ngi lay nuyu. yaa ko mbooleem sa bokk yi nga àndal. Mm. di la dalal. di la wax bisimilah. fii nag nga ñëw tey mooy kër maam Cheikh Ibrahima Fall janatul mahwa mm. ñu di ko wax Touba Fall mm. di kër maam Cheikh Ibrahima Fall nga fekk fi sëñ Amdi sëñ Modou Mbenda xale général de Baye Fall. di jëwriñu maam si Ibrahima Fall. kon ñoo ngi lay dalal di la wax bisimilah kër gi nga ñëw tey sa kër la. jërëjëf am nañ kontaan lool ci ñëw gi nga fi ñëw yaa ak sa équipe bi nga xam ne yéen nga àndal. fi ñuy tàmbalee waxtaan wi mooy fi nga euh, duggee léegi mm. mu jëm ci ki nga xam ne moo di euh, ki fi nekk xale général des Baye mm. euh, bu ñu mënee rek nga jàngal ñu naan ñaar lay doon ba ñett ci moom waaw moom sëñ Amdi. nga wax na ci waaw sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda. Hmm. maanaam ku neex a waxtaane la. Hmm. ku neex a xamal itam ku neex a xamle fii ci réew mi ñu nekk di Sénégal la. Hmm. moom doomi sëñ Modou Mbenda la moom maam Cheikh Ibrahima Fall. sëñ Modou Mbenda doomi maam Cheikh Ibrahima la moo doon ki nga xam ne moo nekkoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall doon ko dawalal. di doom ji jëm jur ba pare jàngal ko muy yor oto bi di ko dawalal mooy waajuram di sëñ Modou Mbenda mm. mooy waajuru sëñ Amdi Fall ñi moo doon itam xalifa sëriñ Modou Mbenda ñetteelu xalifa sëñ Modou Mbenda mm-hmm. sëriñ Modou Fall Mbenda mii waajuram mi ngi wàcc ab liggéey 1955 mm-hmm. bu ñuy wax sëriñ Cheikh Fall moom sëñ Modou Mbenda wuutu ko di ab xalifaam bi mu wàccee sëriñ Mor Talla Fall moom sëñ Modou Mbenda toog toogaayu sëñ Modou Mbenda. Hmm. sëñ Mor Talla Fall moom bi mu fi wàccee jógee bi ab liggéey liggéeyal yàlla moom mii di sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda ci la ko wóotoo doon xalifa sëriñ Modou Fall Mbenda. Hmm. diirub li mu ko nekk itam di wéyal liggéey bi ci liggéey bu kawe njort. di ko séq mboole mboolem njabootu ku maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne ñoom ñoom la bokkal ëttub Cheikh Ibrahima Fall bi ba sama dogal muy Cheikh Ibrahima Fall. Hmm. doon xalifa général loolu egsi ci loxoom dolli ko ci xalifa sëñ Modou Mbende ba mu doonoon sëriñ am di nag moom noonu la deme doomi sëriñ Modou Fall Mbende la moom Cheikh Ibrahima Fall. Hmm. wuutu na it sëñ Modou Fall Mbende doonam xalifaam. di dox ba jamono agsi moo doon jëwriñu maam Seere Faal hmm. di njiitul képp koo xam ne ni yaa ngi wuyoo Faal doon ab Baay Faal gis nañ ne moom euh, bi mu fi toogeeg léegi yàlla na fi gën a yàgg te mu ànd ak lool hmm. euh, na ay ndigal yoo xam ne jóg na hmm. waaye da ngay gis tout le temps moom mooy jiitu jiital njaboot gi dem toog ci kanamu sëñ Muntaxa bu sëñ Muntaxa di wax jox ko ndigal li moom ci boppam te mu koy jëfee waaw loolu itam ñoo ci sant yàlla bu baax te di ko ñaanal di ñaanal jëwri ni jël suñ muntaxaa hmm. sama borom guddal farantu wéral ko moom mi itam ñoo ngi ko fi ñoo ngi koy ñaan sama borom bàyyi ko fi ba ci kanam hmm. guddal faram te dëbb ko kàttan ba mën a liggéeyal maam ja ba mu fi toogee itam di Cheikh Ibrahima Fall la daal di taxaw temm rek ci liggéeyu Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ne ñu naka jekk dafay nekkoon hmm. ñi fi mos a doon Cheikh Ibrahima Fall ñëpp taxaw ko di ko liggéey liggéey bu sell ba mu agsee ci moom itam mu jël ci wàllam fas yéene wut toolub Cheikh Ibrahima Fall bi ba dara booy ci fa mu ko fekkan da koy yokk waaye dara du ca wàññeeku boobee ak léegi tam ndigal li nga xam ne nii mooy bàyyi ko kër Serigne Touba di ñëw ci kër Cheikh Ibrahima Fall ngi ñëw di wàcc ci moom mu di ko jëf jëfin wu kawe njort di ko bokk ak mbooleem njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Ibrahima Fall mbooleem buntu kër yi maam Cheikh Ibrahima yi saa yu ndigal li ñëwee ñoom ñëpp ñoom la koy jot li ñu ànd moom liggéey ko liggéey bu sell ak mbooleem seex yi nga xam ne nii seen maam dañoo taxawoon ak Cheikh Ibrahima Fall ba Cheikh Ibrahima Fall defal seen lépp. Mm. ñoom la koy seqal. Mm. liggéey bii itam saa yu jotee day am yitte ak pas-pas ci bayi sas woowee ba nga xam ne sëriñ bi dana xam ne liggéey bii ñu ko joxoon. léegi sëñ bi def na ko ni mu ko ni ni ni nga xam ne ñu ne ko bëggee woon. Mhm. waaw ñu ñëwee nag ci liggéey boobu sax ñu ñëw nag ci li nga xam ne eh, maanaam mun nañ ne sax lëmbee na lëmbee na jamono waaye ñi nga xam ne miin nañu Touba bu baax a baax miin waa Kër Cheikh Ibrahima Fall xam nañ ne dañu leen a waat seen cër mhm. li nga xam ne yéen a Baye Fall moo ko daan def mhm. ci biir Touba warmaay Touba yi sëriñ Mountakha geestu jëlaat lépp dénkaat leen ko waaw loolu de moom mm. nañ ci gën sant yàlla rek mm. tey di ci am kontaan nag ndax eh, Cheikh Ibrahima Fall naka jekk dafa doon sàmm war may Serigne Touba ndax war may Serigne Touba naka jekk ak nekkam da ko daan bàyyi xel di ko sàmm di ko sàmm lu ñam bokkaloo nekk Serigne Touba ndax bariwaana bariwaana eh, doxeenu murit woo xam ne nii ci moom lañu ko royee àgg na ci ba ci ni ñuy warmaale suñu kilifa yi bu toog bu kilifa gi toogee ca kaw ñun ñu toog ci suuf. banque suñuy tànk di lamsal di xool suuf bañ a bañ ko jàkkal di ko xool loolu lépp ci njàngaleem Sëriñ Fall la. Mm-hmm. te naka jekk itam ba Serigne Touba di liggéey dëkk bi itam mu ngi àndoon ak moom ci di ko taxawu ci lépp loo xam ne ni xeeti liggéey la ak xeeti aar ak xeeti sellal dëkk bi ba nga xam ne nii lépp lu sëriñ bi bëgg da koy mën a jàppandal ci loxoom. Mm-hmm. loolee nag mooy dox ba jamono yegsi ci. sëriñ Mountakha Mbacké mii nga xam ne moo fi nekk di sëriñ Touba tey yëkkati liggéey boobu di saytu war may Touba teg ko ci loxoom. Mm-hmm. ba nga xamee ne nii moom ak ndigal loolu agsi na ci moom itam dafa woo mbooleem bunti kër Cheikh Ibrahima Fall yi nga xam ne ak mbooleem Cheikh Cheikh Ibrahima Fall yi nga xam ne ñii ñoom la ñoom la seqal liggéey bi mm-hmm. dañu aju ci moom mu wax leen ne kat ndigal li ñëw na te ndigal li ndigal sëriñ Touba la te sëriñ Touba kat lu mu digle mën naa am mm-hmm. des koy def lu sëriñ bi digle rek lu mën a nekk la mboolem ñu ngi ko seqal xamal leen ne kat li sëriñ bi digle nañ ko def te Baye Fall moom digal rek lay diglu lu leen sëriñ bi digal moom dañ koy def mm. te sëriñ bi moo leen digal ñu sàmm war may dëkk bi mm. saytu ko ñi nga xam ne nii yàlla dafa dogal ñu di fi ñëw wala ñu dëkk fi te xay na yenn yëpp ñu ngi koy def ci ak ñàkk xam ñu te ñu ñu waxtaan ak ñoom teg leen ci yoon jubbante leen ba ñu xam ñi nga xam ne ñi dañoo jógee ci àll ba itam ñëw fi itam te xamuñu itam ñu xamal leen mm. ñi féetarlu itam des na maslaa ak ñoom ba loolee ñu bëgg ñu def ko hmm. waaw loolu daal <laughs> war ma dafa dafa dafa bokk ci li ñuy li ñuy wax euh, politique bi nga xam ne sëñ bi da koo tere yëngu-yëngu yi da koo tere ci biir ci biir dëkk bi ñu gis ne wax dëgg yàlla euh, fan yi ñu gis ay vidéo yu ñuy def hmm. yoo xam ne euh, gis nañ ñuy nangu yu bëree bëri ci ci nit ñi yoo xam ne waruñu koo jëfandikoo biir daal hmm. waaw waaw war ma ji maanaam politique bi boo dégloo kàddu sëñ bi daa bokk ci li mu njëkk a tudd. Hmm. wax ne bëggatu ko ci dëkk bi te sëñ bi moom lu mu bëggatu ci dëkk bi moom dafay jóg. Hmm. ñu daal di xamal ñi nga xam ne ni ñooy way politik yépp ñoo ko déggandoo xamal leen ne que sëriñ bi lii dëkk bi ab dëkk ma dëkk bi nag daa mel ni dëkk waaye kër la te kër ku fa nekk la boroom kër gi bëgg da koy def hmm. la mu bëggut da koy bàyyi te Touba moom kër sëriñ Touba la ñun ñëpp dañoo gàddaay suñu këri maam ñëw fi ngir bëgg tiraanga ak bëgg ndimalul àdduna ak loolu àllaaxira mm. kon nag ki ñu fi fekk si Sëriñ Tuubaa moom dëkkam li bëgg nañ ko def mm. loolu sëñ bi wax li mu tere nañu ko bàyyi mm. war ma yoojee loolu ci lañu ci la ñu nekk la ca des itam mooy yi ñuy tere politique bi itam ban ci waxtaanee ak nga xam ne ñoom lañ ko waxtaan ñëpp xamal nañ leen ne loolu sëñ bëgg ko fi dañ ko dakkal ba boobaak léegi itam wax dëgg yàlla benn yëngu-yëngu politique amu fi ñu ngi nit ñi ngi sàmmonteel ñoom ci loolu hmm. benn yëngu-yëngu politique amu fi la ca des mooy tere yi nga xam ne ni moom nga dégg ñëpp di ko wax la ca tàmbalee ci col gu bon col gu hmm. yiwadi la sëriñ bi wax col gu yiwadi bokk na col gu yiwadi mooy jigéen ñu sol tubay pan tubay hmm? jigéen ñu sol sipp bu ñu xar ba mu weesu say oom ak jigéen ñu sol col gu dang gu seere ci sa yaram ak col gu yaraax ba nga xam ne ku jàkkaarloog moom di seen ay cëram loolu la sëñ bi wax ne nañ ko tere ci dëkk bi la ca dolli ak gere mooy gere faas. yooyu la yooyu lañ tere ak jigéen góor ñi nga xam ne dañuy sol seen tuba yi sol sol xaaj bi bàyyi xaaj bi. loolu du mm. war ma loolu dañ koy tere dégg nga. Mm. ak góor goo xam ne ñu dem sol mbaxana yi gone yi sol di di kap. waaw dañ koy tere. sëñ bi mm. nee na bokkul ci war may dëkk bi. nañuy sol mbaxana mu yiw moo xam ne mbaxana moom lu mu mën am na mbaxana mel ma ko man te melul noonu. nañu sol mbaxane yooyu yooyu yooyu bokk na ci ñuy tere ak góor ñi takk ay ceeni baat yu jigéen ceen yëfu jigéen la ceen bu jigéen góor takku ko dañ koy tere ak góor gu takk ab lam ci loxoom lami loxo dañ koy tere ak wateef yii ah, ñuy ñuy tuddee dégradé <laughs> yooyu itam dañu koy tere ci dëkk bi ku bàyyi faa ji dox ba dajeeg yow nga def ko dan maslaak yow nag ci ak dal ne lii kat sëriñ bi ndax dégg nga kàddu yi sëriñ bi nga ne waaw lii bokk na ci li muy tere ñun Baye Fall soo na mënee dimbale dindi ko moo nu gënal ci njekk bañ bañuñu sax yëkkati suñu xaalis jox la nga dem ci ñiy wat ñu wat la. Mhm. ñiy liggéey ci terrain Baye Fall yeneen terrain bi noonu la ñuy def su ñëwee fekk ko watu dañ lay wax ne boo nangoo ñu jox la xaalis nga dem watu ñoom mën nañ laa fayal boo nanguwut boo nanguwut loolee mën nañ laa wat ñoom yor nañ ay ay li ñuy wate lépp. soo féeteerloo nag bañ nag ne ne ne doo ko def nag ñoom dañ seet nuñ def ak yow ba nga dindi ko waaye duñ forcer kenn mhm. duñ dóor kenn duñ xas kenn waaye nag danañ waxtaan ak yow ci njëkk ba nga mën koo dindi nga dindi ko mhm. yooyu daal mooy tere yi nga xam ne nii sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda jot na ndigal loolu ci sëñ Muntaxa ne ko na nga sàmm war may dëkk bi ci fànn yooyu yi mhm. loolu nag ci la ñuy xëy ci la ñuy gontu fi mu nekk nii sax màggal gi ñu toll nii bokk na ci li tax liggéey bi gan ñeeg yëf yi liggéey bi wàññiku ñu waaye nag su duntoon loolu dëkk moom doo ci dox ba gis loolu ndax Baay Faal yaa fépp te gis nga yor lu mel noonu dana la ko tere. ñoom sax ñu ngi ñu ngi dëgmal fi mu ne nii jëm tey ci aljuma ji. <laughs> Eh, ñu ngi fii biir Touba Mbacké di waajal li nga xam ne defe naa ne bu buñ fi ñëwee bésub màggal. Hmm. wala buñ ñëwee si wala màggal di dinañ gis kër gi moom macha allah dina mel neneen. Hmm. Eh, ñu ngi waajal am ñoo xam ne ñu ngi dëgmal jóge ci seen i dëkk di ñëw jëm si Touba. Hmm. lan ngeen leen di dénk. waaw ñooñu itam li ñu leen di dënk mooy li ñuy dénk rek ñi ci dëkk bi. ndax sëriñ bi dafa wax ne ndigalal sëriñ Touba la ndigalal sëriñ Touba yemul ci biir Touba rek fu ab murid nekk ci réew mi ak bitim réew te ko dégg yaa ngi ci biir ndigal loolu hmm. da war a tënku ci ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe hmm. ñoo ngi koy soññu ñëpp ci kàddu sëriñ Amdi Fall sëriñ Modou Mbenda hmm. ak jëwriñam yi nga xam ne nii ñoom ñoom la àndal liggéey bi lii sëriñ Daam Fall soora moom nga jógee itam yabal la fii lii ci kàddoom lañ ko war na moo ko war na wax waaye dafa jàpp moo tax ñu continuer di ko wax nii waaye waxtu bu ne ci boo seetee télé yi ak euh, média yi yëpp ñu ngi fi jaale di santaane suñu bokki bopp yi nga xam ne ñoo ci biir réew mi ak bitim réew tey nekk ci yeneen gox di di di leen jot itam ndigal sëñ bi di dénk suñu bopp. Hmm. di leen fàttali war may tubaa hmm. ñu góorgóorlu ci war ma ji waaje waaje ko fañ jógee andi ko ci dëkk bi. Hmm. ndax dëkkub Sëriñ Tuubaa dëkkub xéewal la dëkkub yërmande la dëkkub barkeelu la soo jógee nag yaakaar dara ci mbir lu baax ci dëkk ba di ko sàkku ji soo jógee soo jógee di fa jëm war ngaa waaj. waaj wu waajin wu yiw wu sell wu tedd woo xam ne ku la gis xam ne yow mii kat ab taalibe nga ab jullit nga. dox nga doxee jullit mel nga melaw jullit ci hmm. góor ak jigéen nag hmm. kon ñu ngi sant suñu bokk yi jóge ci yeneen gox yëpp di màggal si ñu bàyyi xel warma yi nga xam ne mooy warmay Tuubaa hmm. ci col yi ak ak jëfin yi ak waxeen yi ak defin yi rawatina nag ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo lu mel ni ki póon wala sàngara wala cigarette wala yu ñu demee wala yàmba yëpp itam ñu ngi koy sant bokk jullit yi ñëw yëpp ñu bàyyi ci xel te bañ koo dugal ci dëkkab Sëñ Tuubaa bi ndax ku ko fi dugal kat soo dajeeg Baye Fall yi da ngeen jëflante ndax borom dëkk bi dafa santaane ñu tere leen ko. Mm. te tere nañ leen ko wax na ko ci télé yi wax nañ ko ci rajo yi. Mm. bind nañ sax ay ay ay ay ay affiche mm. ko ci garage yi. raison yëpp ñu war faa duggee pour ñëw Tuuba mm-hmm. mm-hmm. kon nag sëriñ nee na mi ngi leen di sant loolu ngeen dimbale ko ci te dimbale ci bokki Baay Faal yi mm-hmm. ndax de noppal sëriñ bi mi ngi ci tënk mi ngi aju ci ci ndigal li soo ko nga ko noppal sa bopp waaye soo féetewuloon ndigal li na nga sonn solo nga sonal ñi nga xam ne ñoo jëfandikoo ndigal bi. Mm-hmm. waaw jërëjëf sëñ ñu ngi santaat te gërëm bu baax a baax. Mm-hmm. ci dalal bi dugg nañu Touba mbaake ñun waa 7TV fii la ñu njëkkee. Mm-hmm. waaw fii la ñu njëkkee ñëw euh, ziar ndax ku ne Serigne Touba ne Cheikh Ibra. kon bu ñu ñëwee fii ci kër gi ziar si leen defe naa ne xëy na war war def nañ la ñu war a def. ñëw euh, ziar leen xool leen xool li nga xam ne moo di war maay dëkk bi itam. ngir ñu waxtaan ci ñu ngi dellu di leen santaat bu baax a baax a baax ci dalal bi Ah, ci ci ci li ngeen ñu dalalee ci kër gi ñu ngi leen ciy santaat bu baax a baax te ñaan rek suñu borom dimbali ñu nañ ñu ba li nga xam ne moom la sëñ bi santaane ci réew mi ni ñëpp ci dëkk bi sax ñun ñëpp ñu mën koo mën a respecté kon nag santaat nañ leen bu baax xanaa rek ma bàyyi la nga tàggatoog ñi nga xam ne ñoo lay seetaan jamono ji jërëjëf jërëjëf waaw alhamdulilah sant nañ yàlla bu baax eh, am nañ kontaan te itam ci seen ñëw gi maa ngi la koy wax ci njalbeen hmm. ndax lii bokk na ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ndax lii ngeen def ñu dañoo war a takki rajo di wër di ko wax wala ñuy dem ci tele wala ñuy dem ci rajo wala ñuy dem ci feneen hmm. bu ngeen defee jàppantal bu toll ni nag eh, dox ay jéego ba ñëw fii ci kër sëriñ bi di di di di jëf jëf ji ngeen di jëf ci ak yaatal ak hmm. leeral ak ak laabiri bokki taalibe yi hmm. kon loolu daa mel ni sëriñ bi ngeen ko defal ndax sëriñ bi moo war a wut ay ndaw di yoon yónni ñu di ko wax yónnee ci rajo ba di ko wax yónnee ci tele yi ngeen dagg seen yi te ñëwal seen bopp fii ngeen jàpp ci liggéey bi. Hmm. kon lii yéen yéen ci liggéey bi. ñoo ngi leen ci sant ci loolu woo. Hmm. ndax bu ñëpp meloon ni yéen kat liggéey bi dana yaatu. Hmm. ba yegg foofu sëñ bëgg. kon daal euh, ci gàttal daal ñoo ngi leen sant bu baax te leen ñaanal. yéen xamal ne daal li ngeen def suñu xol seet na ci bu baax a baax a baax a baax. sëriñ bi itam mi ngi soññu bokki tali bi yëpp. ci ñu dimbali ko dimbali seen bopp ci tënku ci ndigalal sëriñ Tuubaa yi. ndax moom amul lu ndigal sëriñ te neen ndigal sëñ Tuubaa su yegsee ci moom amu ci lu muy xalaat jëfee rek jëfee rek <laughs> ndigal sëñ Tuubaa moom amul xalaat te Baye Fall moom bu xasee dégg ndigal lu bàyyi ko ci kilifaam sëñ Muntaxa ba mu yónnee ci mu sëñ am di moom sëñ Moodu Mbend mii di jëriñu maam Serigne hmm. ak seen ndigal ci moom mu woo bokki boppam bi ak taalibe yi bañ ba mu tàbbee ci ñoom ñoom amatuñ amatuñ xalaat hmm. amatuñ xalaat ci li ñuy def kuñ gis moom dañuy jàpp ne rek li sëriñ bi digle lañ ko war a def ci saase hmm. kon nag ñoo ngi soññu bokki taay bi yëpp mm-hmm. di leen digal di leen di leen di leen jéggalu te di leen xamal ne daal ñoo bokk liggéey bi sëriñ ak ak def rek li ci jublu mm-hmm. kon na ngeen ñu dimbale dimbali seen bopp ci jàpp ndal jàpp ndal liggéey bii mm-hmm. di war may Tuubaa ba ni ko sëñ bi bëggee mu amee ko ni incha allah ko bu baax a baax a baax di sant baax ki nga xam ne moo di sëriñ Dame Sodo Fall mi nga xam ne moom moo ñu fi yebal waaye itam sëriñ Abdou hmm. sama wala boobu xam ne saa bu ñuy waxtaan lu jëm ci Cheikh hmm. moom lay jaar ba moom moo ñuy won yoon bi leen di ziar bu baax baax di leen santaat bu baax te di leen gërëm hmm. ne ñoom la ñu leen jox dig daje incha allah fileeg ci kanam ci yeneen i kër ci yeneen i jotaay bu ko defee rek ñu àndandoo ñu nekk yéen won leen li nga xam ne moo nekk fii biir kër maam Cheikh Ibrahima Fall boo fi duggee nag nekk taalibu Serigne Touba faw nga ànd ak mbégte hmm. ndax mbégte gi fii lay tàmbalee balaa ñuy dem li nga xam ne moo di altine incha allah ci li nga moo di 18 safar ñu ngi ci mbégtam safar bi ñu ngi leen jox dig daje fii ci kanam incha allah ci 7TV la télé qui nous ressemble et nous rassemble maam Cheikh maa ngi siyaar ñëpp di leen bëggee di jiital si nuyoo bi ak siyaar bi Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu mulit di ko ñaanal suñu borom yàggal ko yokk ko te wéral ko ba lépp lum naalal sëriñ bi mu defee ko nim ko bëggee noonu lañ koy ñaane ñaanalee sëriñ Amdi mut Fall Mbenn la defi jëriñu Cheikh Ibrahima Fall kon ba tey ñu ngi nii kër maam Cheikh Ibrahima Fall bi fii ci jannatul mahwa nga xam ni fii lañuy eh, waaje ngir liggéey boobu sëriñ bi jox ñu ci kuréelu sàmm warmaay Touba bi lii nag boobu ba tey ñu ngi si liggéey bi biñ tàmbalee liggéey bi boobu ba tey bagage yi lañ fa daje dajaleegul ak ak yuñ jot a taal ndax ku ne xam na ni espace bi demeewut noonu fii noonu tamit lañ koy yaatalee rek ba ba ba ba nga xam te ni daal bagage dañuy bañ mu daja fi di fi bari am na yuñ jot a taal waa daal nii nii la demeegum kab yi ngay gis nii ni nga ko nangoo ci ñi nga xamante ni si maanaam jotuñoo dégg ndigal bi wala it dégg nañ ndigal bi di tànkamlu ba tax na yaatal nañ gëstu yi am na ay féticheurs yu ñu fi jàpp am na ñi nga xamante ni ci wàllum ciné ba rek wàllum takkaay yeeg sëriñ bi doon tere lépp mi ngi fi lépp nag ñoo ngi koy ànd ak sëriñ Matar moom mooy suñu euh, chef de mooy suñu jëriñu équipe. kuréel yi nag maanaam niñ ko yaatalee daam am comité d'intervention am comité d'organisation ndax ku ne xam ne ni Baye Fall yi seen lépp ci organisation lañ koy teg ndax buñ ne Baye Fall ci wàllum doxal moom kenn la ñuy déglu muy seen jëriñ. si biir waar woowu nag ku si nekk am na loo ciy doxal muy sa muy sa wàll ñii ñooy gérer wàllum alamaan bi ñii ñooy gere wàllum colko gi ak ñuy redresser nit ñi ndax nekkul dañuy téye nit ñi jàpp leen rek bàyyi leen ñu dem dañ leen ñaax ci ay kàddu ñaax leen ci ay doxin fàttali fàttali leen digal bi am na si ñu fi jot a jaar sax ba tey dugg nañ ci liggéey bi di ànd ak Baye Fall liggéey bi kon Baye Fall ñi ngi liggéey liggéey bu am solo mbiri teguñu ko ci àll kase luñ organiser la ndax suñu mbokk cadreur bi ñëw fi fàttali nañ ko ko léegi ba ba ba wat ko kon moom am na bu demee dina soñu mbokk caméramanam yëpp ak cadreur yëpp kon noon képp lañ ko sëriñ bi digalee te di ñaan sëriñ bi ndigal ñu jox ndigal li oyof toll si ñun jàpp nañ fi tamit ay wàllum seneebar wàllum tox ak yooyu bu dee wàllum yàmbaaji duñ ko téye fii ndax loolu day mel ni déli ndax dëkk bi tamit dëkk yoon la yoon da ci am wàll loolu buñ ko jàppee ak ñiñ koy jàppal liñ leen yóbbu ci police wala gendarmerie ñooñu ñooy ñooy doxalu mbir mbir moom wàllum pon bi nag ak sinébar ak gens bi surtout gens bi gens moom lu fi lu fi lu lu fi lu fi lu fi am doole la kon nañ nañ nañ xam ni kat sëriñ bi mi ngi soññiwaat ñëpp ñu koy jëfandikoo nañ ko bay ndax Baay Faal li kuñ si jàpp loo si bañul bañul ñu ko si barki si arafaal ndigal li lépp lum jaral nit ñi ngir ñu bañ kaa def jaral nañu fukkam ngir ñu def ko barki Cheikh Rafal ak ku mu mënti doon amuñu kenn kuñ ci xàjji mbaa ñu ko siy génne kon ndigal loolu la ñuy sëriñ bi la ñu bi digal ñu ngi waxee nag ci kàddu sunu jëwriñ sëriñ Matar mi nga xam te ni moo jiite comité d'intervention bi ak Assane moom nga xam ni mooy suñu chef d'équipe mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy bi lépp li nga xam ni am na fi daal ay kuréel la ko jàpp yoo xam ne ci ay gox yu fasandikoo la nekk biir Touba waaw du kenn nit a ko jàpp équipe lañ te it ku si nekk luñ organiser la carte yi maanaam nañ xam ni képp kuñ fi jàpp carte lañ la woon indi la tuuma yi gars di def ak fake yi gars yi def si internet bi dara amu si dara du si dëgg kuñ fi jàpp carte lañ la woon kuñ fi wanul carte amut te ñu la kon nag fake news yi gars yi di def si réseaux sociaux yooyu ñun loolu wuñ ko bàyyiwuñ ko sax xel TikTok ak Instagram ak Facebook ñun amuñu ko sax ñun xam nga luñ xam mooy lu seriñ bi wax lu sëriñ bi wax nag ku ko wax moom loolu ñun loolu lañ wax ko waxul xamuñu si yow dara waaye ñoo ngi fii ci liggéey bi maanaam ba tey nag bàyyiwuñ duñ buñ jàppee duñ bàyyi fii sëriñ bi li mu bëgg amut barki sëñ Maodo loolu xam nga Baye moom ay takkaay yi daanaka maanaam taxul ñu ne la Baye Fall jëf ju sell ngay jëf ba koo jaxasool sax amaana bu xamutoon Baye Fall war na faa mën a jaare xam Baye Fall kon Baye Fall du ay takkaay du defi njañ du yooyu Baye Fall jëf dëgg la ak wax dëgg ñun ci loolu la ñu sëriñ bi tënk ñun ñi nga xamante ni nag ñooy Baye yi xam nga nag problème bi mooy lan Sénégal dañoo mënta distinguer Baye Fall ak leneen kuréel yi fi nekk di tuddoo ki Baye di soli palaat di defi yooyu noonu ñooñ lañ doon ñoo ko xam waaye ñun liñ doon te sëriñ bi tënkuñu si loolu mooy sell jaamu yàlla liggéey ñaqu jariñu tudd yàlla naan ci café tubaab bi toog di déglu ndigal joxe suñu àddee sëriñ bi ñiy def loolu ñoom seen yëfi bopp lañ nekk ñooñu xamuñu si ñoom dara kon koo fi gis muy def loolu mën a la waat dóor sa loxo si taabal ne du Baye Fall moom yëfi boppam la yor Baye Fall daal ñi ngi kër suñu am di Fall Modou Mbend bi di di di di nekk aussi tamit ci buntu kër Cheikh Rahima Fall yëpp kon noonu képp la deme waaw waaw lii mooy carte comité intervention bi lii nii ku ko gis xamal ni kii kuñ intervenir xamal ni lii ci lu wér a la ñuy lii kuñ ñu yor carte bi ñu lu wér a wér a wér moo leen moo leen yëkkati waaw am na yeneen carte yoo xam te ni ñooñu ay sensibiliser dañuy sensibiliser ñooñu moom am nañ droit wax ak ñëpp am nañ droit tamit def intervention mais intervention avec force ñu yore carte bii rek ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko war a def kon ndigal loolu ba tey rek ñu ñëwaat ci organisation bi xam ni lu Baay Faal toog def ci ay étude defuñu ko ci ay ali kese de étude lañ def xam lii kat maanaam mm, liggéey la boo xamante ni avis la ndax ab Baay Faal lu mu mënta régler keneen mënu kaa réglé ndax ñun jiitaluñ suñu intérêt personnel ndigalu sëriñ bi lañ jiital te moom lañ def en faveur kon nañ xam ni kat maanaam ndigal loolu la ñu sëriñ bi jox te it ñu fàttali rek lépp lum jaral nit ngir ñu bañ kaa ñu ngir ñu bañ see tënk jaral nañu lu ne ngir ndigal loolu am te lu sëriñ bi bëgg par force day am moom daal nañ ko xaman nañ ko nañ ko xamandoo lii ay féticheur lañ ko jàppee ku ne xam ne leen yi moom waaw ay lu ne ay jalan ak sàngara lañ si doon def ak yooyu noonu waaw moom daal nii la deme waaw waaw waaw moom daal mi ngi mi mi ngi nii ñu xam ne kat Baye Fall moom fii rek lañ tënk seen kàddu te fii rek lañ tënk seen doxin kon képp koo gis doxewul ci lii la mu doon moom moo ko xam waaye ñun Baye Fall yi tey tënku ci Cheikh Rahima Fall ci lii lañ nekk barki sëñ Modou Mbenda ñi jaay seen bopp tamit maanaam jàpp nañ fi ñu baree baree baree bare waaye doxalin bi sutura sëriñ bi dañ ko digal ndax nit ku si nekk am na àq ak yelleef am ñu droit di publier ay nit ci réseaux sociaux yi loolu ña koy def tënk wuñ si ndigal te it gisagoo kenn koo xam ni si kër gii la ne ci ndigalu sëriñ di Moodu mbenn di def loolu kon la koy def ñooñu ci mbenn mi lañ nekk kon ñooñu eh, population bi nga xam ne ñoo nekk Touba nañu xam ne képp ku la wanul carte wanu la carte intervention bi bu la ñëwee laaj la bul dem bul nangu xam ni sëriñ bi moom ñi am carte ñi kase la la la dugal si liggéey bi bëri na ñoo xam te ni seen tolluwaayu bopp lañ ci lañ ci lañ ci lañ ciy demee du ñuy bàyyi ñooñ lañ doon ñoo ko xam yaruñu mënuñoo yar kenn soxna yuy wecc seen jëmm yi nag maanaam ñooñu maanaam sutura moo tax rek amaana mu demee nii waaye ku si nekk xam nañ fa nga dëkk ñii génn nañ leen Touba féticheurs yi génn leen Touba ñii tëj nañ seen kër kon li sëriñ bi bëgg ñu koy waxaat rek for force am ku neex ak ku mu nakari barki sëñ Modou Mbend wasalaamaaleykum.